feebar bi dafa exister dafa am te luy lor doomu aadama la te lu gaaw la lu gaaw la lu ñu si mën a génne mooy ñu moytu mooy ñu toog wax dëgg yàlla sacrifié wu une bonne fois pour toutes mu jeex benn yoon dem yoonam mais su fekkee ñu ñëpp dañoo bëgg teg pression président de la république ne ko lii lañ bëgg lii lañ bëgg wala ñu wane si tuuti indiscipline wala ñu wane lu ñu neex la ñuy def wala am sax ba léegi ñu ne gëmuñ feebar bi bu yàggee wax dëgg yàlla mën ni indi problème ñëpp. waye ci fuma gën metti rek moy ci niw doole parce que buñu démé ba nga nara tok toog sa kër ñu confiné la xam nga ci côté informel bi nga xamné ne seen liggéey au jour le jour lañ dem dundu nga dem ba to sax gën dem sa yoon loolu lu ko in nag moy fièvre bi gëna yok kon bok nañ jël mesure barrière yi. ma gis ne euh, bu la yalla dimbalee nga am li nga dundé yow sa njabot wax deug yalla yalla mo la sutural bu la neexon tek ko tek ko jox ko ñeneen xañ nako nga génn ko bokk ko jaam yàlla yi wàññu la dara te it ñun si li ñu yëngu mi ngi tudd politique te boo waxee politique rek wax mbooloo à chaque fois que fe xam nañu yoon bi fañ dem jaar di dajale nit ñi di di leen rassembler di leen dajale di leen jébbu ci stade di dajale nit ñi di leen jox xartum di leen teg ci kaar yi ñuy fees dell ñu yew suba ba ngoon di ñëw di yuuxu suñu tur yi donc bu mas mi amee nag ñun buñ leen làqatu surtout les policiers. Si vous laqatu nañ dem su ñoom bu xaar sax ñu ñëw jàppale leen euh, contre moi. ko dem gouverneur contre moi. Nous dem jox euh, ministre de la santé contre moi. ko lu ko day gaaw fekk parce que vous euh, avez gouverneur ko mairie ñu ñu ne bindal xam ma indi sa carte d'identité bindal xam ma lan bind bi ngay bind ku xiif ku sonn nga naan ko bindal indi sa carte indi sa nangam ñu jox la jox boo demee ñu jox la nangam mais loolu c'est difficile nit ki bu xiifee bu sonnee wax dëgg yàlla jaaxle di bind ak yooyu dafa jeex je pense que yow mii di autorité bi yow mii di politicien bi yàgg ngaa xam fu ñu nekk yàgg ngaa gis seen koñ yi fu ñu nekk parce que boo soxlaa président de bi war a ñëw di nga leen fekk ji fi ñu toog leen wax leen lii nga bëgg yow tamit kon jarul aajurul ngay dem ci autorité bi eh, ngay dem ci gouverneur di fa teg li nga li nga li nga dimbalee fekk leen seen kër yi tas ko fa jox leen ko nu mu gën a gaawee ñu dund ko te bu ko wax du ko wàcc fii yaa ngi ko mën def ko loolu waral euh, Ousmane Noël euh, euh, ak man ak sa mouvement bi ñu naan ñu ngi koy wax MJKDFS nekk ci ginnaaw ministre Diène Farba Sarr monsieur le ministre Diène Farba Sarr bi nga xam ne yàgg na aussi am confiance si toute la jeunesse kaolagoise lim def ci man noonu la def plus de 315 jeunes yu nekk Kaolack loolu la jël nañu Ousmane Noël bu ñu bàyyi mukk di dimbale jaam yi parce que période bii nag période jaamu yàlla la euh, loo ci même pas politique sax mais politique boo xam ne la jaamu yàlla la ñu jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi man loolu rek moo ma neex franchement euh, bu ñu sañoon sax yàlla loolu la ñuy defal saxal ñu teraanga suñu loxo yi ñu jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi loolu moo waral ma waxoon sama euh, sama sortie bee passé ne instant bi Sénégal talul coow instant bi Sénégal talul xiiroo ak ŋaayoo waxon naa ne benn parti politique moo am c'est le Sénégal benn opposant rek la am mooy Covid 19. et donc dañu war a joxante loxo euh, mais dans la main liggéey wax dëgg yàlla euh, xalaat loo bépp leçon bu refet rek moo xam ne boo ko joxee président de la république mu appliquer ko Sénégal jëm kanam loolu la ñu war a gën def kër di ñett nekk ci réseaux sociaux yi comme suma xarit suma mbokk musuma attaquer nit musuma ko wax dama koy conseil rek euh, suñu mbokk Ousmane Sonko ne ko franchement. Tout ce qui est rare est cher. C'est la rareté qui fait le coup. Mais je sais que mon cher Ousmane, il y rare. À chaque fois que je fais, il y parler pour parler. Depuis très longtemps, il y a occupé les médias du, du, du président de la République. Mais il y que des femmes un charisme. Le président Macky Sall, si tu as Senghor, nga jël Ablaye Wade nga jël Abdou Diouf lañ ci def Sénégal moom moom da quadruplé Et nous xam nañ loolu bañ bañ xam na et Euh, monsieur Sonko day mel ni yow dekkatu opposant mais ennemi nga wax na ba juum nit ñi dañ taluñ ko na jéem a xool génn bu dee milliards yu mu campagne milliards yooyu bu dee moo moo ko moom na si jéem a def social jimbale jaami yàlla yi Sénégal yi nañ nañ yeewu Sonko la la la def lu mu def Sénégal lu mu indi ñëpp a ngi jéem opposition opposition bi lu ñu def dara dara dara mais ñëpp ngi jëm di def di période bi c'est des très difficile. mais yow dara bu ñoo